yëngootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be safar terootina sunu deret yëngootina sunuy sidit yëngootina bu ñi jóg di way sang bee. doom day defee dañ defee suuf rafet numéro gannaaw ay jàng tey ban jàngat ngay def rëdduwaay bi nga xam ne moom na ko mën sëñ bu wax gannaaw ginnaaw ay jàmm Omaro amul ak ñii benn problème gannaaw ginnaaw ay jàmm doo xool li ngay laaj ah ginnaaw ay jàmm amul ci suñu am ñii problème non non non boo ay jàmm day mel dafa am ak ñii problème si bopp laay dox moo tax li ma maanaam li may mel du ma xam la nekkee ndaw la ngay jël lépp jox ko sa Tuubaa mu sàmbal la sa mag sa Tuubaa Sëriñ Saaliw Mbàkke Xaadimu Rasuul dafa foogoon ndaw soo gisee foogoon ndaw nag daf nekk Tuubaa mu ne jox ma ndaw ñi ma def ci ñoom mag yi ëllëg bu joxee ndaw ñi mu def ci ñoom mag yi ëllëg man sama ndaw dama ko teel a programme ramassé ko jël sama xol ak sama xëtër sama yiw rek jël ko jox ko sa Tuubaa xarit moo tax ragal ma dara tiitu ma dara loolu nag moo xam ne mooy Pogba bi fekk si li ko seq bu tànn gi laa defee seq bi ñu ne ko daan def tey seen saa yu bëri ñu ngi koy def man mii ci indi benn def waaw gis ne xam ne chaque année day gën a yéene ba waaw. am ren bu jëm bee am na mbooloo bi gën a bari nag yi ren yokku na mbégte bi yokku na pëstëf bi yokku na wala dëgg gën a yokku kii nekk ci ginnaaw mu nekk ci ginnaaw baax ko ñaanal bu baax wér yàlla bu baax di ñaanal taalibe yi nekk ci réew yëpp ñaanal borom julli ñaanal réew jàmm sax kontaan naa ci lu ñu def suñu fête férié ñoo ngi remercier président bu ni li mu def nii defaloo kenn Serigne Touba la ko defal Serigne Touba boo ko defalee li mu def nii ñoo ko ci gërëm ñoo ko ci sant ndax mënu ñoo màggali ba pare ñëw war a nelaw nit ñi di xëy di liggéey bu ñu liggéey ñu dàq rek daal na ñoo xam ne seen sabar rek la jàkkaar kon ñu ko ciy gërëm bu baax di ko sant waaw màggali ko lu dox Thank you. ci lu mu bëgg a loolu rek nga gis ci moom. tey laa doon waxtaan ak benn góob gaal bi mu ne ma sëñ Mountakha mu wax si côté Tabaski danaa doon bëgg a siyaare dama ci sëñ Cheikh dañ koy laaj ñëwal ci man. loolu mosoo ko gis mosoo ko dégg dama tey laa ko yëg. tam xarit bu jëlee dara ñu siyaare da dem kuy laaj na ñëw ci man màggal gii noonu kuy laaj ñëwal ci man kuy siyaare demal fee te ñëpp la yeewi kon moom bu ñu fayam sax dañ ko ñaanal yàlla guddal fanam may ko wér ah mu yàgg lool sax nag safar sunu sidit yëngooti na ñu jóg di way sang be safar terooti na sunu derot yëngooti na sunuy sidit yëngooti na bu ñu jóg di way sang be